léegi dafa am loo xam ni daf ko wax te loolu aussi war a leer xanaa loolu procureur procureur war na ci mën a auto saisiru pour loolu mën a leer. mooy mu ne quarante et quelques yi ci compte nangam la nekk numéro compte bi nangam mais loolu xanaa bu fekkente ni wax na ko te ñu bëgg mu leer mais procureur de la république war na mën a saisiru ci loolu xanaa loolu leer ku wax loolu kay am na fu ko teg fu. xam nga vous tombez dans le piège de Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ko convoquer il faut ñu lever ba pare. mais ñaata ñaata immunité lañ fi lever. l' ñaata. mais bëriwul. Ah, ñaata. ak lu ko delma mais non attends. karakara fi lever ni levé nañ fi nañ compté non non waxuma nañ compté. Ah, nañ compté rek mais xam nga bu ñu ko bëggee def pour Ousmane Sonko loolu loolu loolu yoo xam nga ni minute la à l'assemblée mais mais bu ñu débat boobu xam nga lu tax. voilà xam tax. non mais pourquoi duñ dugg ci débat boobu waaw mooy procureur dimbali ñu ngir yàlla ci plainte bi Mamour Diallo dugal. mais xanaa kon boobu aussi da nga xanaa loolu nan nga mën a waxee loolu aussi loolu c'est paradoxe. Mamour Diallo tey yaay avocat mu porte plainte député loolu aussi nu mën jàlle. Pape Gueye man droit lay wax technique. waaw yow xëy na xamoo droit. acca dama ne la ci xaalis ci état bi Ousmane Sonko doon laaj 94 milliards yi moom du état agent judiciaire de l' état déglu ma waaye Pape Gueye agent judiciaire de l' état même Macky Sall mënul laaj xaalis bi yow xanaa déglu fi may waxee agent judiciaire de l' état rek lañ may. mu porte plainte Pam Ngañ wala El Hadj Diouf nii da laal xaalisu état bi dégg nga fi may waxee par contre Mamour Diallo moom laajul xaalis de dafa ni kii dafa maa sosal. kii dafa yàq sama der. mais député la. waaye ma rek. mais député la moom. waaw teg ma déglu. waaw. Mamour Diallo bii pa moom mooy topp ba Ousmane Sonko moo doon topp xam nga nu róowul bu jaxasee wax ji bële Ousmane Sonko moo topp Mamour jàlloo ñu jàpp ko tëj ko fayloo quatre vingt milliards. ñu ne ko yow quatre-vingt-quatorze yow moomoo ko amoo droit laaj ko jógeel fële. par contre Mamour Diallo mi xam ne dañ ko sosal am jabar am ay doom am papa mu nekk ilimaan imaam la à ñu yar ko ci droiture ñu ne ko sàcc nga quatre-vingt-quatorze milliards mu porté plainte ni waa fan laa ko sàccee moo tax ma bëgg procureur mooy dégg ngir yàlla demal leen assemblée bi même Djibril Wall maa ngi koy nuyu boo defoon commission parlementaire bi maître Djibril War la commission bi mu paree dañuy gisuñ fu maam yàlla laalee ñaar dërëm gisuñ benn virement yi mu doon wax ay 46 milliards. ay compte sangam dala ko joxee pam ngañ mais mi ngi persiste ba tey suba suba mi ngi ciy persiste rek ba démb rek waxaat na comme yow juriste yow la nga yow taskati xabaar nga voilà doo ko laaj ñu ko man taskati xabaar laa Ousmane Sonko damaa bëggoon nga baaxee ma rek wan ma même ma joxul ma ma lire euh, ordre de virement bi wala ma lire compte bi ma xam ne teg sama bët sax au moins wan ma rek ma xool lancé daal di fi les journalistes du Sénégal ku ci mës a gis rek na ma ne El Hadj Diouf da ngay fen man naa la loolu man gis naa virement bi gis naa compte bancaire bi numéro bi yëpp day kàcc Ousmane Sonko lu mu la wax suba ba ngoon jot lépp ay kàcc la kon contre ma ko de bañu ko de mais man samay rab moomu lu supporté naa fekk boo xam ni saytaane boo xam ni yéy. naan mu yuuru nit ñi gëmloon da ngaa gë ngaa jub te yaa gën a jub la ñëpp man ma nekk fi askan bi billaahi bañ ko leen nax gis kii di leen nax ma di leen yee man ma ña man ñaan naa ko bu mu wanee rek benn situation oo ko ne ko preuve yaa ngi nii muy grand jury muy faram fàcce invité ko man damay génne ay firnde booy wax de naa Macky Sall wax ne troisième mandat amu ci droit na ñu war la preuve nii nga gis nga lire compte bancaire bi ak numéro bi parce que amul waa ji dafa mën a sos billaahi wallaahi taalaay jomm naa ko dëgg mais am na ñu ko gëm nag dax fen day law di law waaye dëgg mooy mujju